abonné leen ci suñu chaîne YouTube yu wér te le premier ministre ñu ngi lay sant bu baax ci kàddu gi ñu jox ngir ñu àddu ci olof waaye di sant bu baax journaliste yi nga xamante ni ñu ngi teew fii ak ñépp ñi ñuy déglu ci Sénégal ak ci bitim réew. am na ay laaj yu ñu laajoon ci nasaraan ñu bëgg ko tënk ngir leeral ci wolof jëmale ko ci wàllu lii xew fële ca kër góor gi ci suñu compatriot di citoyen Ousmane Sonko waaye tamit di laaj ci wàllu ay vidéo yu jëm ci police nationale bi mu defee conférence de presse bi waxoon na ci ak tamit euh, lii nekk ci wàllu euh, ñetteelu question bi journaliste su monde bi moom moo ko posé woon dem na ci ndax police dafa am lu mu bëgg a joxe ci lu mu war a layee ci li ñu ni dafa bari ñoo xam ni li leen faat balu fi tal la ci laaj bu njëkk bi jëm ci wàllu euh, barrières yi bala ma ci àddu damay bëgg njëkk a leeral ci wàllu